ñi ngi jéggalu ñi ngi jéggalu ci xaar bi de ah euh, Souleymane moom euh, tey yi la fi nekkal et je suis avec lui alors euh, ñu wax mbas mi Cheikh Tidiane loo wax docteur. mama Souleymane <laughs> bi ñëpp. réseau bi. baaxul est-ce que mën nga déplacer wu tuuti. li ma fi mën depuis bi ngeen ah ma déplacé wu. waaw déplacé wu. Ah, les autres jours ça marche je sais pas pourquoi vendredi ah, et jeudi parfois c'est voilà c'est pas trop ça. la ligne est fatiguée. la ligne elle est voilà la, la la batterie elle est low. docteur. oui. yaa ngi ñuy dégg cette fois-ci. maa ngi dégg mais am na bruit am na bruit ah, ñu ngi jéggalu mais mais comme téléspectateur yaa ngi lay dégg te ñu ngi xaar sa kàddu mu am solo lool. Euh, ci mbas bi ak euh, tolluwaayu réew mi fan la tendance bi nekk. comme ni ma ko waxee tendance bi. Mhm. ba tey ñu ngi kon. ay ay on arrive plus docteur. docteur. Euh, oui il faut il faut il faut essayer parce que voilà ni mu koy waxee docteur El Hadj du Ndiaye euh, Chérif bu ñu ko mënee am tout de suite laata ñuy tàggoo xam ngeen ne euh, fan yii yëpp euh, la tendance elle est haussière même si. Euh, car cas yi positif yi xaw na wàññeeku mais quand même na ñu ngi si courbe bi et puis li ñu ne nemmeeku cas de décès yi quand même ni ñuy yokkoo fan yi jéggi na dayoo parce que euh, en trois jours am nañu nombre de dése yu bëri donc loolu euh, dañ ci ànd ak docteur El Hadj du Ndiaye parce que mbas mi mi ngi fii te mi ngi wéy di def ay loraange je pense que Souleymane mën nañu làmbu docteur El Hadj du Ndiaye laata ñuy tàggoo parce que xam nañ ne débat moom xajul fii. débat bi xajul xajul ci info du matin parce que man euh, quand même li Souleymane euh, wax ànd naa ci euh, situation bi compliqué na compliqué boo xam ne quand même intermédiaires yi il faut ñu def ci taxaw seetlu parce que boo xoolee producteur voilà producteur yi li muy wax Souleymane on achète je parle des prix des prix maintenant c'est le rôle naturel de l'État de veiller à ce que euh, les les marges soient équitablement réparties entre les différents acteurs non mais régulation boobu je suis d'accord non seulement régulation mais même la force du pouvoir de l'État c'est-à-dire État war na euh, jël dooleem fexe ba prioritairement protéger les consommateurs loolu mooy rôle État après État au nom de la protection des consommateurs warul gaañ yeneen intervenants yi importateurs yi demi grossistes yi grossistes yi état ci boppam dafa am ay tax li ma ragal li ma wax man moom mooy état bi parfois sous prétexte de régulation lu muy défendre c'est plus moom gafakam c'est-à-dire taxe yu muy percevoir ak yi mel. Hmm. moom mooy tax parfois yenn yi du ko appliquer moom mu ngi joxe exemple carburant bi. Hmm. état bi boo xoolee structure prix. non xam nga euh, carburant bi exemple. xam mais. parce que c'est l'exemple emblématique et typique parce que chaque pays dafa am boo demoon France les taxes yi. France sori na Mali Côte d'Ivoire pourquoi les gens achètent moins cher. non bul jël Mali Côte d'Ivoire ah, c'est pas un pas que loolu c'est une politique souveraine de tous les chaque état a sa politique. Hmm. au niveau des taxes sur les hydrocarbures boo demee France taxes yi parfois ñoo gën a ëpp sax am na benn moment boo xam taxes yi ñoo gënoon a ëpp sur les hydrocarbures que que euh, Sénégal. Hmm. parce que en fait chaque pays di waxee dafay wax ne bon hmm. sur les hydrocarbures danaa def le maximum. très bien rapidement docteur ñëwaat na voilà docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. docteur ñu ngi jéggalu ci euh, euh, dog dog bi maa ngi ko doon wax sànq rapidement fan la tendance bi nekk jamono ji. jërëjëf man tamit maa ngi jéggalu ci antenne bi nu mu euh, mel tey waaye di leen xamal ne rek xëy na am nañ ci tuuti yaakaar ci euh, évolution bi ah. ndegam ñaari semaine yii yëpp gis nañu ko tendance bi tax ko yokku noonu à la limite dafa xaw a tuuti loolu nag ñu ngi ci am yaakaar. Mhm. di xalaat ne xëy na semaine bii di ñëw su dee nii la continuer. Mhm. mun nañu wax ne yaakaar dina judduwaat encore nga xam ne benn tendance waaye nag ba tey comme ñu ma ko waxee loolu yëpp dafa tënk ci kaay naka lay évoluer parce que gis nañ ci rek semaine bële paas ak semaine bi ñu génn nii bi ñuy waaj génn nii tendance bi xaw na wàññe xël bi xaw na wàññeeku loolu nag aussi di rafetlu rek xëy na nit ñi niñ ci taxaw ci ñàkk bi. ak ci sol seen i masque ak wax yi ak ñaar yëpp ñëpp a ngi ci daal gis nañu sax même ci communication bi euh, pédiatrie yi ñëw nañu wax nañu. gynécologue yi ñëw nañu wax nañu ak yéen ci li ngeen nekk nii ak ñi yot mag ñi aussi dinañ ñëw wax bu nekk wax nit ñi nga xam ne ñoom aussi ci seen i wàllu ay spécialiste lañu. Hmm. dafay naa bu ñëpp jàppandoo dóorandoo xëccandoo dóorandoo rek. Hmm. xëy na euh, yàlla dinañu may buntu fekk nit ñi aussi taxaw ci mbirum ñàkk yi aussi. Hmm. continuer parce que ñoom ñëpp seen kàddu benn la ñi demoon ba ñëwaat ñëpp dañoo ñëwaat ñàkk yi ñoom ñëpp dañoo digle nit ñi ñàkk aussi ñoom ñëpp koo xam yi. gynécologue yi xëy na pédiatre yi du xale yi la ñu wax déedéet dañu naan mag yi nañu ñàpp pour aar xale yi. Mhm. gynécologue yi dañu wax ne jigéen ñi wérul nañu ñàpp ñeneen ñi euh, euh, ñu yore mag ñi aussi ci loolu ñooy taxaw seen communication aussi loolu te ñu tamit ci loolu lañ doon woon nit ñi bés bu nekk. Mhm. te aussi continuer aussi di wéy di sol seen i masque comme ni ma leen ko waxee. Mhm. malheureusement nag boo seetee ñi génn àdduna day xaw a bëri tuuti. dégg nga gën a àdduna nag su amee benn rek mën nañu wax ne ko bëri na waaye lool nag dafa fekk euh, troisième vague bi ni mu songee dafa bëri ay nit yu mu yu xam ne ñoo daanandoo d'un moo tax it ci semaine yi moom malheureusement ñi génn àdduna moo tax ñuy compter muy xaw a sakkan. Hmm. kon nag ñu ngi ñaan yàlla rek nit ñi gën a taxaw fi ñu taxaw hmm. dégg nga di ñaan di topp di topp digle yi. di di dem ci bërëb ñàkkukaay yi aussi di wax ne aussi am nañu yaakaar ne que AstraZeneca bi ci semaine bii di ñëw. Mm. incha allah am nañu yaakaar que. dina am lu dugg ci réew mi parce que jot nañu bataaxal bi nga xam ne. Mm. que dina am lu ñu yónnee ci semaine bii di ñëw wala ci ñeexalu semaine bi incha allah. très bien. docteur waaw yaa ngi wax euh, contamination bi mi ngi wàññeeku da nga jàpp ni kon vaccination bi mi ngi ciy def effet. waaw loolu moom euh, mun nañu wax ne que euh, quelque soit par vaccination bi. Eh, ñàkkul am lu mu ci dem xëy na nag tuuti na trop waaye nag ñàkkul am na lu mu ci def parce que euh, boo seetee am na xam ne am ñu ko. Mhm. nit ñi dañuy wax ne parfois gis naa diw bu ñàkk xëy na am na ko waaye xëy na ni ko amee def ko ci sëti waaye soo gisee loolu am na ki am xam ne aussi am ko kon nag mun nañu wax ne am na ko mais ñun ba tey xeeb nañu li ñu jot a ñàkk ci Sénégal ba léegi xeeb nañ ko waaye nag. yaakaar mu ngi ci parce su dee million bi passé na million quatre vingt mille tey da nga million bu teg presque presque euh, téeméeri junni nit pratiquement ñàkk nañu kon nag ñu ngi ci yokk ci xëy na nag xeet nañ ko luñ ci yokk rek defe naa du doy nañu gën a nañ ko gën a yokk rek parce que port ndoll bi foofu la variant li ñu ci li mu bëri doole li mu garaaw garaaw yëpp ba tey nee nañ ñàkk bi am na ci moom effet bu baax a baax a baax kon nag nañ ci téye continuer di ñàkk. Mhm. léegi ci stratégie ba léegi parce que démb nañ dégg nañ démb gynécologue wax ko les femmes enceintes quand même affaire bi mi ngi leen di lor ñoom ak seen ay bébé ngeen ñi ngi leen di xiir aussi ñu ñàkku ji loolu aussi bokk na ci décision bi nga xamante ni gynécologue jël nañ ko mais ngir yombal leen ko est-ce que am na stratégie yéen au niveau du ministère de la santé ngir femmes yooyu accéder quand ci vaccin yi bañ a rang ci barab yi ak yooyu. loolu moom ñu nekk ci bërëbu ñàkkukaay yi ñooñu moom dañ leen a jox ndigal lépp lu ñu mun a def pour nit ñi mun a jot ñàkku yi nu mu ci anam bu gën a rafet loolu lañ leen wax. nit ñi su dee ci structure de santé bi d'accord bu dee da ngay génn ci yenn bërëb yi gis ngeen ko sax ñuy génn ci yenn bërëb yi di ñàkk nit ñi jigéen ñu wér ñi tamit war nañ ci gën a bàyyi xel puisque ñoom tamit ci cible bi la ñu bokk te aussi ñoom war nañu leen a beral loxo. sage-femme yaa ngi fi gynécologue yaa ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ñoom tamit pour ñu gën a jot ñàkk bi nu mu waree nit ñi daal dañ wax ñu gën a ubbeeku dem fekk nit ñi xëy nag munoo dugg ci kër su nekk parce que ñàkk bi moo ni anamel munoo ñëw dugg ci kër génnaat ci kër parce que ay piqûre la et cetera loolu tamit euh, noonu la kiyee waaye nag il faut que ñu def le maximum pour que nit ñi mun cee jot sax que ñu sonn loolu la ñu bëgg loolu nag liñ ciy dimbale aussi mooy que nit ñi dimbali mais surtout ñàkk yow ci am bu bëri ma xam ne mun nañ ko tax fu nekk ci gox yi ak ci gox xawaat yi ba nit ñi mun cee jot ci anam ñu ñu waree ndigal yooyu lañ ñuy la ñuy jot daal pour que nit ñi. tey ban yan spécial si ñoo ñëw ci point du jour bi. te gériatrie mooy maanaam ñi toppatoo mag ñi. mag ñi waaw baax na ci am na solo dégg nga xam am na pédiatre am na aussi ñu yore gériatrie. Mm. ñooñu la ñu programmé. très bien ñu ñëw wax encore ak nit ñi waxtaan ak ñoom joxe seen i kàddu. jërëjëf merci beaucoup docteur El Hadji Mamadou Ndiaye euh, on vous souhaite une très bonne journée et puis euh, bàyyi la ba ci kanam ndax point du jour bi fii ak ay simili yu néew di ngeen ko def foofee euh, ca ministère de la santé très bonne journée docteur et très bon week-end. merci par ce, ce sera pas un week de tout repos évidemment puisque ñu ngi ci troisième vague et puis euh, Delta euh, avec ses soucis euh, mais bon dans tous les cas on vous souhaite beaucoup de courage et puis euh, spéciale à nos médecins nos soldats euh,